voilà ñu ngi ba tey buntu kër champion euh, euh, Balla Gaye numéro 2 grand naka moom. ça va ñu ngi si jàmm ñu ngi si jàmm Sénégal ñu ngi leen di nuyu. jox ma tur bi naka la. Khoulia Nabi yaa ngi toog buntu kër euh, mbër. lan nga sekk ak mbër. waaw mbokk la voisin la dëkkandoo la waa xarit la quoi. Mm. ko barki dem gars yi supporters yi ñu bëri neen dañoo joom mi. dañoo joom <laughs> waaw non bon xëy na liñ doon xaar carrément lañ gisul quoi te fii Sénégal amul benn nit buy may sa bopp ndama ah, j'espère yàlla mooy maye quoi champion bi moom def na ay investissement humain yoo xam ni xam nga c'est c'est extraordinaire si boppam def na alalam def na kattanam xam nga ñi ñi ko bëgg di ay àndandoom di ay soppeem jàppale nañ ko ci mais wuti woon na mais gis nga ni ko yàlla dogalee moom du moom mooy may boppam quoi. ak Gora nekk marché Maam Jaara bu golf jàkkaarloo ko ñu Balla Gaye nii euh, mën nañ wax ne yéen ñëpp ay jege ñaale Balla Gaye yéen ak parce que ay dëkkandoo ngeen ay supporter ngeen noo jàngatee làmb ji. waaw làmb ji daal moom li ma ko jàngatee moom mooy xam naa ne Balla Gaye daa juum quoi. nu mu maam jumte bi mooy. Hmm. c'est-à-dire Bombardier mbër la moo xamante ni na doole. bee ko bu ko Balla Gaye dàqee bëree sax am na doole quoi mais dafa bàyyi Balla Gaye ak combat bi. waaw dafa bàyyi Balla Gaye ak combat di def ay contact am di kii ba widewu nag waa di vidéo ba vidéo nag ba mu nag ci la ko saay euh, doole ji jeex quoi xam naa ci la ko beesee xam naa loolu sax du combat mais bu nu avancé waatoon tam xam naa ne dina day metti daal quoi mais bu ñu mësul xamee noonu démb ñu gis euh, mu bëree. noo man loolu sax jaaxal na ma sawaay jaaxal na ma quoi parce que Balla Gaye la ndaanaan la bëreekat la def na lu nekk ci làmb quoi. mais bi lu ma gis ni mu bëree moom sàng rek maa ngi koy wax sama benn copain quoi ñu ngi toog fi maa ngi naan ko Balla Gaye dafa asaaloo combat am quoi. lan nga lan nga jàngat ne xëy na moo ngi ko manqué moo tax mu demee noonu mu bëree amul amul conseil ci làmb ji. amul conseil quoi parce que bu amul conseil. bo Bombardier ñi ko daan ñëpp dañ ko nax daan ko. Euh, ñu ngi fii ci biir golf dugg nañu ci góora ñu ngi ak euh, benn menuisier le grand menuisier nekk fii ci golf marché Maam jaar jàkkaarloog ko ñu Balla ay dëkkandoo ngeen alors euh, tur bi naka la. Mouhamed Ba. Mouhamed Ba waaw sama doom baay nga. Mouhamed sa mbër li mu bëree keroog lan nga ci jaaxal. ah jaaxal ñu ñëpp rek moom jaaxal na ñëpp bett na ma moom wax dëgg yàlla kenn xameewu ko loolu moom. Hmm. mais nag moom bisu defet moom du bisu ndam moom. waaw mais nag champion la nag moom. wax dëgg yàlla waaw. lan nga jàpp li mu bëree ba mu bett leen jaaxal leen lan lan nga lan nga gis si ay faay wala boog lan la la Balla war a changé. ah non moom moom war na liggéeyaat. waaw nu liggéeyaat waaw waaw physiquement physique bi moom des na. Mm. waaw physique bi wax na liggéeyaat. waaw kon ça que li mu demoon liggéeyi France. Mm. Euh, seen xel bi mu simmee ko gis ngeen des na des na mm. liggéey bi moom des na. waaw na liggéeyaat ci kanam léegi. na liggéeyaat gis Balla Gaye tamit ñëw euh, mystique bi mu jëlee ko gëdd de trop. ak ñi ko wër tu ça ba ci biir combat bi ñu gis ne Balla ba woon damay attaqué song pas une minute mais mu changé carrément loolu tamit. waaw loolu doy na wax nag war na xoolaat nag encadrement am tamit bu baax tamit ah am na ci solo waaw. waaw ay ndaw kase war na am ay mag quoi tamit xam nga ñu nekk ci làmb ji encore. Mm. waaw loolu tamit. jaaxal nañu bari tamit. am na lu ko ci wàllu euh, parce que am na ko wëroon. te gisaguñu leen voilà loolu tamit day manqué tamit. ak papaam yëpp tamit loolu tamit yëpp day manqué. waaw waaw waaw Père Balla Gaye waaw moom it grand champion moom tamit. da koy manqué lool moom tamit. waaw waaw moom daal Balla champion la na góorgóorluwaat. waaw li li li ci kanam am ay combat yu doy waar. waaw non incha allah na defaruwaat rek dina ci génn bu soobee yàlla. waaw da defaruwaat rek. waaw lool la ok. waa léegi ñu ngi ci benn atelier boo xam ne tamit mi ngi nekk ginnaaw kër Balla gay ñoo dend sax euh, mën nañ wax ne toujours rek euh, ci biir géejawaay la ci golf sëñ bi tur man Xaadim. Xaadim seetaan nga komba bi Balla Gaye Bombardier euh, Balla nan nga jàngatee ni mu bëree keroog. ah ni mu bëree keroog gars yi bëri nee naan de kii de ndax Balla daana indi lu gën a fiir loolu. Hmm. Balla bu waroon gën a mën a waaw Baal waaw keroog moom gars yi nee na daal yéwé na trop waaw. mais moom ma mais man moom keroog bi mu bi mu keroog maa ngi woon kii quoi maa bi mais bi mu jëlee ñaari kuy waa ji ma dendal na ko sa waaye day daanu sa fekk boobu jël bi kiiwagul ñëw ñëw waaw waaw bi mu jëlee rek automatiquement ki ma ki ma ki ma dendal dama na ko sa waaye te de. Mhm. Mhm. lan nga jàngat ba jàpp ne tey du bésam euh, yi bëri tamit dañ neenaan kii wu de ko làmb ji. Mhm. Mhm. waaw. gisoo ne Balla pareegul ba tey mi ngi doon mi mais nag man li mu li mu indi contre Modou Lo bu ko andi woon ci da koy daan. waaw waaw bu ko andi woon ci comme comme li mu andi ci contre Modou Lo bu ko andi woon contre kii da koy daan de ndax man si seetlu na am na fu ko Bombardier mayee nii sa kiiwul dara hmm, am na fu mu ko keppee nii fu mu ko jëlee bu baax mais au lieu que maanaam waa mu dugal tànk mais kiiwul dara loolu tamit jaaxal ma si trop. mais ñëwuñu imposer ko pour daan ko. dañ koy door mu kii mu riposte wala ñu daw kii xam nga affaire yooyu mais boo ñëwee ñëw bëgg a indi sa doole carrément ñëw bëgg a dal ci kaw Bombardier war nga ko ëpp doole da ngay da ngay am yàgg ñuy wax mu naan arbitre na Bombardier ñëw. waaw loolu tax dafa dafa ne woon dafa ne xale laa arbitre day siffler sax. waaw tax ma ne la dafa xas da see xam Bombardier ba pare tam amul am xam na Bombardier sax mais dafa amul conseil xam nga entraînement sëñ bi moo mel noonu boo entraîné ba yor sa doole c'est-à-dire boo boo bëreegul lu nekk mën nga ko kii quoi mais contact ak Bombardier moo nekkutoon yoonu combat man sama gis-gis laa Balla Gaye man sama mbër la moom Balla Gaye bu ñu ko daanee du ma nelaw billaahi wallaahi ah, li mu bëri jaaxal na ah na ma trop man moom yaa maa ngi ko wax benn kobe kii te et puis itam dama bëgg stade baax na quoi mais affaire u cumukaayam affaire u galaajam quoi seulement na ko géral boppam quoi ak i na galaaj nag kalaam bi dañu gis ne dafa indi galaaj dafa indi galaaj oh. bi dafa jaxasoo dafa jaxasoo quoi seeraan naa la maa nga benn ko am na am na ginnaaw Balla Gaye xam na ne am na entraîneur am na ay kii am na waaw am na am na encadrement quoi ñoom Asin Ndiaye ak yooyu yëpp mais cumukaayal na koy téyel boppam quoi man loolu laa koy conseil quoi su ma ko doon conseil waaw mais vraiment bërëkat la lépp la mais daal li mu bëree daal ñun jaaxal nañu ko xaw ma nag ko teg daal mais jaaxal nañu mais ak wutin bi dañ doon wax ne Balla dafay ñëw dal si waa ji moo ko pour doole moo gën a nekk xale moom sax da doon wax ba mu nekkoo nag ma mayoon minute wax ma ñaata minute nga ne mu ne mayoo ma dara bu arbitre sifflé ma ñëw jël moom mais ñu gis Balla taxaw donte sax am na ay action yu mu def mais kenn yaakaarul woon ne dina bëree noonu ba jël ay avertissement mm-hmm. waaw xam nga nit moom am na loo xam yaa moom am na loo xam nit ñi ko moom si yow waaw ñun bir na nag bu doon Balla Balla kase moom match bi tas na bu yàgg quoi xam nga mais xëy na xam nga ay digal ay tegtal te xam nga yenn saa booy dem si xare yu mel noonu xam nga dañ lay ñàkk quoi xëy na ñàkk biñ ko ñàkk moo jur loolu noonu xam nga affaire fii essayé na quoi waaw waaw xam waaw en forme bon fii kenn ku si nekk suñu am nga ay autorités yu ne derrière yu lay conseillé di la jàppale si yu bëri am loo xam ne si cër la buñ la buñ la alloué quoi xam nga léegi li ngay def mooy jéem ko respecté yenn saa nag da ngay def far gis leneen wala nga def gis safaan waaw def na xam nga ça n'a pas marché quoi xam na xeex attaqué na bëre dugal na kelek yooyu doxul te ki mu doon bëral aussi morphologiquement dafa am nu mu mel xam nga mais loolu lépp njàngat moom moo ko ëpp doole moom moo ko ëpp doole moo ko ëpp doole moom mais bu est ko daanee wala est-ce que est-ce que est que tu est que est de moom sax wax na ko moom ci mu doon bëreel boo marié nee na ko maa ko ëpp doole dix fois waaw ah, mais man Bombardier bu ëpp doole man Bombardier gis naa ne ñi mu ëpp doole yëpp si àdduna da leen a moxoñe de am na suñu xam ñoo xam da leen dóor ñu daanu. Balla fi nekk nii nii euh, ëllëgu ah, yaakaar naa ñeneen de moo moo ki taxoon na moo booy ñaaw waaye man de sama sañoon day jël kee ba pare doog jël booy bi. kee gi gi gi Gris ah. na ñaari combat yooyu nekk combat yu nekk ba ci moom ñoom ñaar boobu yaakaar naa moo leen man de. Mm, booy ñaag boobu yëpp nii nii nii nii nii ah ci kii wul dama waaye nag dëgg yàlla man daal li mu indi compte Modou Lo rek moom bu ko indi ci combat bi moom da taxee daan moom mm-hmm. ah, man moom bi mu jëlee ñaari kuy la sama yaakaar tas moom maa ngi woon stade waaw ah, stade waaw keroog tamit géew bi tamit yàgg na ci torop ah ci géew torop mm-hmm. ah keroog moom damaa mujj sax waajo ndewal la ma ne ko maa ngi ci biti damaa liw liw damaa eh, man Balla dama kaa bëgg nag mm. waaw moom doo ngay bëree may dagg sama xaalis ah dama ne ko maa bi yàgg <laughs> na waaw <laughs> léegi léegi biñ la fekkee a ah, damaa ki man non man moom bi mu bi ñaari kuy laati pare moom waaw ah, waa ñu dee nag dama ne ko sa waaye day daanu de waaw. <laughs> ñu nga ñaan tamit ñaari combat mi amante bi yàlla na ko yàlla yombalal rek. waaw ak sëñ Tuuba a mu ne non gars yi nee euh, ñi tamit ñu ngi koy mu dëgg la am déet nee naan ba mu gëjee e, école bi tamit kii na te su bëri dëgg yàlla am dëgg la mais entraînement tamit si la bokk de. entraînement moom moom mooy su su ñu ko wax moom mooy soixante quinze pour cent yi. entraînement doole euh, leneen des moom dangay nga ak yàlla rek waaw yeneen ci des moom da nga ak yàlla mais entraînement moom moom moom moo gën a wóor moom. léegi naka la waa waaw stratégiquement ça a faussé ça a faussé loolu rek la faut mais gisoon ni nit ñi bari nañ woon trop lu toppoon la tamit yoo xamante ni c'est à rectifier. waaw xam moom ginnaaw moo tolloon noonu. mais loo gis rek après da nga siy defaat ay jàngat jël ci ay leçons xam nga prochainement ñu gën a améliorer environnement bi quoi gën ko assainir waaw. technique bi tamit est que c'est à revoir. waaw bon si aussi c'est à revoir on revoit toute la forme waaw lépp la ñuy revoir waaw. <laughs>